rafetlu l'info yëglekaay xëy feelu ko ne tertu bu doy waar la ko tertoo foofee ci AIBD moom Amadou Ba di xam ne ne dellu siwaat na fas yéene doxal ginnaaw bi mu génnee ci réew mi nag ndaxub défaite bu mu amoon ci élection présidentielle yu 24 mars candidat malheureux bu benn Bokk Yaakaar boobee nag dellu siwaat na ci réew Sénégal amadu Ba démb ay collaborateur am ay partisan ak ñi nga xam ne rek ñoo di ay jegeñaaleem ñoom ñëpp ñoo ko tertu lu jëm nag ci élection présidentielle yu 2024 ak lajju gamu ca lajju waaye tamit ëllëgëm ci wàllu situation bi nga xam ne rek moom la réew Sénégal nekkee jamono ji nag loolee lépp yëglekaay bi ne Amadou Ba dana ci dellu siwaat nag ci ni mu gën a yaatu Sud Quotidien dellu siwaat ci trahison bi nga xam ne rek moom la tudd ci digganteem ak Macky Sall yéenekaay njiital opposition bi di Amadou Ba def na ab comeback boo xam ne rek bëri na ay laaj yu mu àndal Direct News nag xëyee moom itam dellu siwaat bi nga xam ne rek Amadou Ba dellu siwaat na ko fii ci biir Ndakaaru moom njiital ku jëgi fas yéene jàkkaarloog Macky Sall ak Jomaay Faye ginnaaw bi ne nag président Macky moo trahir Amadou Ba waral ba mu ñàkk ci élection présidentielle yi enquête yëglekaay xëye tey jii nag li ñu bëgg a dekkilaat nag ab pôle libéral démocrate goo xam ne rek dafay dajale nag njabootug démocrate ak famille sociale Moussa Diakhaté bu bokk gis-gis daal di xam xamle ci biir yëglekaay bi ne ñeent fukk ak juróom-ñeent ci ay formation nag dajaloon nañu ngir waxtaanee ko mu di APR PDS bokk gis-gis RDL Yeesal UCS ñoom ñëpp jamono ji ji nag ci ber BRT bi nga xam ne rek war naa tàmbalee daw ni ki ëllëg ci àllarba ji yéenekaay bi ne le grand départ enfin ginnaaw ba ñu xamle woon ne daañu door wàllu dembeeg dikk bi ci weeru février bii ñu weesu nag BRT bi ëllëg àllarba yem ak fukki fan ak juróom ci weeru mai ci la fas yéenee tàmbali lépp lu jëm ci wàllu liggéeyam ñeenti weer ginnaaw bi ko Macky Sall inauguré mu yem ak fukki fan ak ñeenti ci weeru janvier bii ñu weesu juróom-ñeenti weer ginnaaw bi ñu amalee lancement yi nga xam ne rek ci lañ doon amalee phase test bi bés bi le jour feelu aw yoonam le temps moo yëglekaay àddu jëmale ci wàññi teg njëgu dund gi nga xam ne rek moom la njiitu réew mi xamle woon yéenekaay bi di samp laaj ne ndax jomaay fay nag dina réussir boobee pari nag lu mu ci mënti doon am nay tontu yoo xam ne rek Momar Ndaw bu asko seen professeur Idrissa Diandi bu ikaat ak àll je bu inaakuwaa yeesal tontu nañu ko ci biir xibaar yi Walf Quotidien faylu ko ne lu jëm ci wàññi teg njëgu dund gi nag fukki fan ak juróom ci weeru mai ci la kilifay réew mi xamle woon ne nag daañu amal wàññite yi ci jëm yéenekaay bi ne ab test bu rëy la nar a doon ci jomaay fay turbine yëglekaay xëyee tey jii nag ci beneen jafe-jafe boo xam ne rek nar naa tegu ci kaw bi sénégalais yi di dundee jamono ji nag yéenekaay bi ne boulanger yu Sénégal ña ngay xupp nag ne boo moytuwulee daañu yokk njëgu mburu mi nag li ko waral bokk na ci yokkutee bu ñu nemmeeku ci njëgu woyofal bi Senelec nag jamono ji nag ma ngay justifié wu nag di duut baaraam tàngoor wi ñu nekk yéenekaay bi ne ñi doon consommer vingt mille ci weeru avril doublé na ñaari yoon ci weeru mais bi ñu nekk Amadou Gaye ne li leen jaaxal mooy machine yi ñu daan jëfandikoo moom la ñuy woy di jëfandikoo rawatina production bi ñu daan amal amal amut lenn lu ci soppeeku le mandat xëyee tey jii nag rapport yi nga xam ne rek moom la cour des comptes ak OFNAC di fësal boobaak léegi yéenekaay bi xëy di samp laaj ne lan la procureur di xaar ngir autosaisir ñeel yi la rapport ci biir 24 heures Moustapha Diek Sarr mel na ku leen tontu moom mi nga xam ne rek mooy porte parole bu gouvernement bu Sénégal di àddu jëmale ci les rapports de corps de contrôle ma ngay dalal xelu askan wi nag ne faaw rek ñu daal di amal ay poursuite gëm nañu justice bu réew Sénégal ak na muy doxee ci indépendance bi nga xam ne rek am na ko jamono ji nañu ko bàyyeeg boppam moom justice nag moom xam na yoon yi nga xam ne rek ci la war a jaar ngir mën a leeral nag lu jëm ci rapport yooyee nga xam ne rek moom la ñuy génnee boobaak léegi yéenekaay bi di bés bi le jour xëy tey daal di àddu jëmale ci décret yi nga xam ne rek moo jëm ci salaire yu ancien ministre yi nag yéenekaay bi ne jomaay dagg na lépp àddu jëmale ci wàllu tàggat yaram yéenekaay bi di réew mi sport dikk na tey ji nag ci coupe du Sénégal jongante yi nga xam ne rek ñu ngi koy waajal mu a dox ci diggante AS ak Casa Sport DSC ak Jaraaf yéenekaay bi ne ay choc yu nar neex moom la ñuy de finale yi jeexale yëglekaay yi ak li nga xam ne rek yéenekaay yu bëree bëri xëyee nañ ko nag niki tey jii mu soxal accident yi nga xam ne rek moom la ñuy jamono jii ci kaw tali bi turbine yëglekaay yi daal di xam le ni nag ñetti doomi aadama ñàkk nañ seen bakkan ca foire yéenekaay bi ne accident boobee la ko sookee bokk na ci ab ligne tata bu 44 bu amul frein moo daal di wàccu yoonam daal di déraper nag faat lu toll ci ñetti doomi aadama waral ba yëglekaay bi nag ne askan wi jamono ji nag Jean Baptiste Tine ak El Malick Ndiaye ñoom la ñuy interpeller ngir ñu daal di wu